xam des fois bi day ñëw mhm. mais ñu gis diggante Adamo Pawlish Ndeye Lo coow mhm. nga xam ne mooy def it fi mu nii moom Sénégal yi jël mhm. teg ko ci kaw loolu dégguñ la nga wax ci yooyu loolu foofu bëgg naa nga leeral bon wax jëmm jooju moom sérieusement moom damay passé à côté quoi man bëggatuma wax ci ay waxam vraiment mais Ndeye Lo moom li ma koy conseil li may conseillé ay parce que ndayloo Lo vraiment jigéen la doful mais xale la quoi ba pare xelam des na Mhm. donc na ay waajuram jël ay ay ay ay seen responsabilité ñu mhm. protéger seen doom parce que muut bi ñu ko bàyyi nii bu continuer mën na ko yóbbu feneen ëllëg comprendre nga mhm. ay Pawlish mbay mii magum jëmm la nit la boo xamante ni ñëpp xam nañ ni dafa xamadi quoi maam moom xamante wuñu mais amuñu benn problème mais ñëpp xam nañ ni moom réew na te da koy wax tu et puis am na yenn yu bari yoo xamante ni buñ ko ci déggoon du ko def dara même seen coow li ñuy wax ni bu nekkoon dëgg la moom du ko wàññi dara lijjantiwul yooyu noonu su boobaa ndeyloo mooy jigéen mooy xale mhm. moom peut-être moom mooy gën a dund mbir bi ko moom mhm. donc na ay waajuram jël seen i responsabilité parce que buzz jarul yenn yi dëgg la te boo gisee buzz moo tax ñu créé seen affaire yi nii tu vois ba ay wax yu ñaaw yoo xamante nii mhm. ay mbokk yaayam sax bu ñu ko déggee mën na ngi noonu daal maanaam ci jigéen dafa ñaaw quoi te buzz jaru ko coup monté la je ah. sais coup monté na fi def ay coup monté vraiment man monté xam nga mais ama sénégalais comme dafa bëgg lu bon dëgg la moom nag jaral na ko bës jaral na ko muy fay ay nit mhm. di teg ak ñoom ay ku sénégalais yi di ko topp baax na parce que mhm. sénégalais yi tamit lu jig njaag ñoom ñooy njaag nga xam ne tey jii moom moo def moo def moom moo def nga xam ne tey jii moo wër àdduna mhm. gaa yëpp maanaam jëloon ko du sérieux lu mu dugal gaa yëpp daw flow ko dëgg la ba démb sax génn génn na di excusé wu sénégalais di jégalu ba tey dañ koy follow yi sénégalais sénégalais amul fulla maa ngi jégalu bu baax si kàddu yi mais sénégalais amul fulla

mais Sénégal ñoom ñooy topp benn film film bi nangam dugg na fii génn fii chaque jour ñu dem seetaani ko. ba pare kenn mënu wax ba mu désabonné wu. dëgg la mais jëmm jooju noonu nit ñi dañuy continuer di ko suivre. même bu fekkee ci ay kàcce la sax. Hmm. mais comme que moom jëmmam déjà am na ambiance. Hmm. te mën na wax wax ju bon ñun wax ju bon lañ gën a mën a valoriser donc dañuy continuer di ko.